de l' autre côté nag ndeysaan waa waa Kër Mbaye Fall ngay am na parce que général moom moo toog général mbaaw. ah ñooñu say mbokk lay waa Kër Mbaye Fall la fa demee. Kër ak parcelle la le derby waaw waaw léegi arbitre bi sifflé génn seen diggante. léegi léegi léegi monsieur l'arbitre sifflé génn seen diggante. boobooy cinquième combat n'est-ce pas. cinquième combat de la soirée. ni ma leen koy waxee sama yi tey le dimanche 16 juillet 2023. ñoo ngi à l'arène nationale le promoteur Mor Diouf à la de la structure Diouf yi production moo organisé Sele bu ndaw Sele bu ndaw Gaynde Sele bu ndaw face à Gaynde Merci de merci de rien merci merci de rien waaw waaw waaw waaw waaw waaw arbitre bi sifflé na génn seen diggante arbitre bi sifflé na génn seen diggante Salou bu ndaw moo jàkkaarloog ñun Talla Gaindé moo moo ñu won ginnaaw monsieur l'arbitre sifflé na génn seen diggante Talla Gaindé école Papa Dambay face à Salou bu fal ndeysaan Talla Gaindé waaw waaw noonu la fa deme non dafa mel ni kii moo bëgg a dem Sëlu bu ndaw. bëggul xaar Sëlu bu ndaw moo bëgg a dem dafa bëgg a apprécier combat bi Caala Gaynde na ah sànni na ko sànni war na ko eh tal na ko jëli na ko jëli na ko dem nañ ci suuf attention Caala Gaynde Sëlu bu ndaw ñu ngi ci suuf mbot ma mbot ma mbot ma ñu ngi bëree waaw waaw. waaw na xale yaa ngay bëree. bëri nañu bëri nañu lu rëy dem nañ ci suuf dem nañ ci dem na mbaa jël amul jël am na daan na ko daan na ko daan na ko sële bu ndaw daan na ko sële bu ndaw daan na ko sële bu ndaw daan na ko sële bu ndaw daan na ko ndeysaan dafa mobilisé dafa mobilisé lu bari sële bu ndaw daan na Talla Gaindé sële bu ndaw daan na Talla Gaindé sële bu ndaw daan na Talla Gaindé jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante waaw waaw daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko dan na ko jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante